aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim rabbi israxli sadri wa yassir li amri waxlul xoqdatan min lisaani yafqoo xawli sir si taasara fa kullu ma yasartuhu tayassara mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen ñi nga xam ngi leen di nuyu bu baax a baax te leen jaajëfal di wax ngeen wéy di abonné tey zam yi te di ko Eh, mais gan chaîne bi na nga abonné tey j'aime tey partage vidéo yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax te la a jàmm te di ko sàkku si yéen comme niñ ko baaxee def saa su nekk rek tey ñu indi daal leen beneen njariñ ba am solo lool te bàyyi ko ci alxuraanu karim ñu ko daa waxee rek ñu soññ suñu bopp soññi leen lu jëm ci jaamu yàlla ak ragal suñu borom ak topp ko te wekk ko te ko xool jamono bi léegi nit ñi demee. lu doomu aadama sàggan sàggan sàggan war naa xam ay farataam te lum mu mën a nekk mboole ci jaamu suñu borom ndax moom rek moo fi nekk lu waay am lu mu bari bari di dem bàyyi ko fi looy ñàkk-ñàkk di dem bàyyi ko fi kon gisuma lu waral tax doomu aadama yi doomu aadama bi di sàgganeeg jaamu yàlla walla muy jëfandikoo yenn yi suñu borom di tere surtout ñun ndaw ñi nanu moytu lii di ak mooy nu ko gën a moytu bu baax a baax a baax ndax man mi wax ak gen ndaw laa comme yéen waaye nunu góor góorgóoru ñun ñëpp te sax ci li suñu borom digle te moytu ak moy ndax la jiitu ci ak moy mooy dalay jural ak tëju sa wàllu wërsëg ak gàtt fan bàkkaar ba nga xam ne yàgg sa borom la door caa topp te daray àdduna jëru ko te bari na ñuy wax naan dañoo tëju ak di jàmbatu ñàkk seen bopp te dëkk ci mooy rek moo leen ko waral ndax kat doomu aadama mënta dëkk sobe ba pare di am buntu wërsëg gu yaatu mënta nekk suñ borom wax ko benn julit amaa jëmi ñi nga xam ne moom duñ ay julit loola xañ na mën na leen a jik waaye kilib loolu jéegu ko comme ni ko baaxee def saa su nekk rek te indi leen njariñ boo am solo yow mi nga xam ne bii da ngaa a tukki wala nga bëgg wërsëg wu yaatu moo xam ki bëgg tukki mu jafe ko. wala ki nga xam ne daa bëgg wërsëgam yaatu lool mbokki xaatim boobu ngeen di gis moom ngay bind ni ñu ko bindee incha allahu rabbi yow bëgg a tukki da bind sa tur ci biir mooy foofu ñu bind fii ngay bind sa xaajo mooy kër gi njëkk ci kaw gis ngeen ni benn chiffre nekku ci dañ cey bind fii ngay bind sa aajo foofu nag ngay def sa sa tur ak sa turu waajuru jigéen ak sa turu wu góor maanaam sa turu ndey ak sa turu baay nga ciy bind boo bind sa turu ba da ngay bind sa turu ndey ak sa turu baay ak turu réew ma nga bëgg dem bu dee bëgg tukki nga def ci turu réew nga bëgg a dem wala visa ak ak turu visa ba nga bëgg saaru moo xam ban visa nga bëgg yaa ko xam nga def ko ca. incha allahu rabbi nga aw ko nga def ko tànku téere tànk ndejoor boo ko awee ba pare danga koy takk sa tànk ndejoor sa koy takk incha allahu rabbi bu dee tukki rek nga bëgg suñu borom dana la ko jàppante la réew moom nga ca def ak visa ba nga bëgg da nga ko am te da dem ci réew moom incha allahu rabbi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di tuubal bu baax a baax a baax mbokk jullit yi nga xam ñooy topp liggéey bi. te saa su nekk ñu ni woo diñu jaajëfal ñoo ngi leen di ñaanal jàmm lépp li fay jëlee yal na suñu borom barkeel ko ci barkeb alquranu karim te nangu ko te def lépp yiwu àdduna ko àlaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu